yu so so league bi ngeen win ko after da non non ko at boobu ga fekka lifin la woon league bi nekkul si premier league bi four division team la ok waaye after ñoo at boobu noonu ñoo demoon ba si um, final si si finish um, cup final si waaye man si fekkuma woon ma fekkoon fi maa woon a player on the 20 bi seen last qualification games against Mali waaw dama ko mujjee woon a miss so mujjee moo woon a miss for now boobu nekk first time team bi ak après stage boobu noonu. waaye léegi fu mu nekk team bi dafa relégué yaa ngi second division. oh ok loolu la la bëgg a laaj sax ndax bente yaa ngi si dixième team bi oo. non non non non loolu after for for dafa mhm. play in 2006 mhm. 2007. Mhm. then 2008 si laa ñëwoon Gambia for the first time My plan national team Okay. No, ko mën am World Cup and African Cup qualification ñu bokkoon ak Sénégal ak Algeria ak Liberia after my play, been a game that I play on from a library eh, on second half. Mm -hmm. Then after loan, your channel have been a play for my once been because in a game she back my own. Then after my deal, mm-hmm. Finland, my meeting as my agent, my name Kong time, Hong Kong. didn't get play in Premier League for no time. I can play in Europe, um, UEFA Cup qualifications. So I want to play finish racing Santander. Mm-hmm. Yeah, after that, my deal, the model Finland for after two days, I miss my agent. that very day ma ama moom meeting si la ko gars yi xonkoy call mm-hmm. because of président xonko bi si dëkka ma nekkoon di play moom waa mm-hmm. foofu la mm-hmm. waaye mu ngi woon beneen cité xonka mu ngi just boy capital bi Helsinki is all the same so ne ma wane on xonka ñoo la ni loan as a loan ma ne ko man dama bugga dem because of beneen step la woon paiement because of mu gën ngépp play si Premier League ba pare ñu play like qualification ak ak yeneen European team ma ne ko man dama bugga dem 4.1 because of Morgan fee. I'm going to playing after two and a half years, so I think if I'm not I'm ready. So I'm going to from now play and I'll be place Premier League be taking all the stuff after my occasion I'll get then after that, so that everything after one week from now. So that travel hunger, them hunger. Then. You get develop a movie from mom. fekadala wa move wana helsinki si team mone ka right now yeah. ko ye okay. feka move nafa mo move move 2007 summer mom okay. tan lona deme wo then man did following year 2008 sila fa dem nga feka fa no no no different team why i arrive as the one okay wa mom ngon ma ngon hong kong so sen first time ngeen tase nia si field bi again ina ngi again play ngeen wa game bobu fu nga des mo first game bu ñu play Jag gars i Helsingfors Helsinki la moom gars yi seen own stadium yi fan naa moo nekkoon sama first match ma play ko ñoo från noonu gars yi seen biir dëkk foog naa two zero mu ngi play waaye foog naa ten minutes rek laa man mhm. at boobu four games rek play it was 2008 la moom season mu ngi about seven games laa move si summer bi temps bi def ñu xam nga Finland season bi ay boy April la yeddoo ba October sa temps bi summer ne play because of seereer bi like Sweden ak mhm. Norway ak ay yeneen dëkk yi so ñoo bi noon ngay tu mo suma mun a remember then after game boobu si leen travel dem Spain si la ma coach bi boolee fekk one month trials laa fa amoon nag after boobu one month bi jeexee mu ne ma gaa leen moo jox contract three years ok afan do am day am benn kola si line bi ñu jël kola boobu ah allo kola allo yaa hello jaamu rek naam ok nañ def loolu. <laughs> waaw. ok jërëjëf. ok ok. xam naa ok ok <laughs> waaye xam naa afta si kanam tuuti nañ ñëw si maaji démb bi. waaw ak Kripke waaye léegi fu ñu nekk nii. Hmm. foog ñu wax sa profil bi foo nekkoon ak Kripke daf so yaa di Dawda Ba boo leen si biir fiil bi loolu lañ njëkk a wax yéen ñaar ndax wax ngeen. non before game bi day before mm-hmm. game bi dañ si text. Mm-hmm. ma wis ko Goodluck mm-hmm. Slack ko wis Goodluck moom tamit si ma wis Goodluck waaye man play woon sax man second half laa play woon waaye moom mu doon play ok waaye soo boo dugga si moo dugga si mu ngi kontaan man because of moo nekkoon suma first game bi ma play si Vegas Liga bi Finland mu ngi kontaan to at the same time because of tamit dafay nice time nga gis sa mooy football la kon moo sa expérience koo xam ne yaa ngi jógee moom benn that time moom nekka nekkoon only game ku doon play si Finnish Vegas was the highest level in Finland. So after one year, he was so happy. Was after game, don't know him on there. But after game, you know, they come together, my mom. Yeah, mom. Yeah. So, like a life of no life at football before. Well, I'm cool. What I like is name. Um, scon like so they play con the fact I'm in a certain team, so I'm so far naked and feel like I play because of mom time but when we play Helsinki, my man Honka. Mm-hmm. That time Honka it was a good team. Finland dañ naa mun always compete Helsinki because of Helsinki mm-hmm. moo nekk di biggest club in Finland moo nekk di famous club mm-hmm. almost every season mm-hmm. ñoo lay win bi da ngaa gis ne past four years yëpp gars yi ko win so ba nekk di only team boo xam ne ñoo lay mun a play every time di play against yeneen team si magi kon last year ñu ngi play against Celtic against Bilbao mu ngi sant yàlla daal sant yàlla daal sant yàlla daal waaye am Hello? Hello. Hello. Hello. E-boy. naam. naka nga def. nice show. ok. My name is Demba Savage. to mm-hmm. um life experience of mm-hmm. professional life am okay, you know. yeah. ok he has done good for himself. Mm-hmm and I congratulate him and I wish him all the best in life. Okay. And then uh, on to you. Okay. Um, you have somebody right beside you that you have a lot, a lot, a lot of things to ask. Okay. And um, I really do appreciate it if you work on your questionnaire. Okay, okay. And then uh, ask him questions that will give us an in-depth of who he actually is. No problem. It will really help. Ah, waaw Pola boobu ah, dem na waaye di kontaan si moom bu baax a baax mu mm-hmm. bu baax a baax waaye ok comme ma ko doon waxee rek nga ne laaj foofu mu ngi kuul. waaye sant yàlla. Mm-hmm. sant yàlla bu ngi kuul sant yàlla yàlla. soo léegi ñu ñëw si Gambian football. Mm. Ah, gis nañ di ma am ngeen nice game waaye balaa loolu rek boo déggee ne ñoo Ivory Coast ak Tanzania ak ñeneen ñoo nekk si. synchrophilophiel. Ramona and is a good team. Mm -hmm. Morocco is a good team. Tanzania mm -hmm. is a good team. Mm -hmm. But I'm off the bottom, that, I'm not funny sometimes. Mm -hmm. Because i am so seen